Atoumane nit nga war a crocodile yow. voilà yow yow léegi loolu mooy xëccee nii yow lan la. Atoumane yow kan moo la indiloo kii fii nii tout en sachant ni que ni sama jabar ma ngi ci biir kër gi. man loo moo booy duul booy. sama kër jabar la. Atoumane dañu ma héberger lekk dañ ma koy jox naan dañ ma koy jox loolu nga la man loo moo tooñ ma de. Atoumane bëggoo ma Atoumane ko bon xol nga. waaw léegi lekk ma lekk ma léegi. boo ma déglu noy comprendre yow mon maa ngi dem hôpital pour dindi sama pansement yi ñu ma defaloon bi may ñëw si yoon bi la ma woo mu ne ma dafa da ngeen joxante woon rendez-vous après ñëwuloo mu ne ma dafa ñëw dafa bëgg a ñëw seen kër lan laa koy wax dama lu ma si mën. yow nga ne nga looy ut ci kër gi. est-ce que loolu question la xanaa du yow yaa ñu ubbi léegi bunt bi. xam ko mais dama xam lan sa ci kër gi. Ako kay. Ah. No dudu. Man fatush la dudu. Ay. No nah, ya. nah, gadak. Nah, Ang nga ya, ma yore buntu ker tamit. Luy dug luy gen dama koy am. Dëgg la. man sœuru papa la. Mo. Yow yaay do papa da da da nek jigen bay tak Eh, rek leen laa wax nekkal Eh, sir mooy rak. aku papala. la. Rakku Wah, da da do malene sa solin bi nga ne rako papa déedéet he wax ma dëgg de waaw wuyu ma man maa juum baal ma papa moo naa doon sama futur jëkkër naan waaw ay waay waay nana <laughs> naam koy de jëkkër wat lan la lu xew nga ne kay yow yaay moo chocolat bi <laughs> yaa ko nag man mii may moo chocolat la ilaha illallah aki daga tafit de yo ngay wote pare ko nga indi la la la dara mang lay bay nga toog man ma jom ki de moom tas dekk bi rek mi adu man nga woo amo amoo sama numéro lay way tan bobu non la lay def pour woo la temps bi nga jël cukkat cukkat ñew ba ci bir kër gi nga woo may and ak moom atuman yow bëggoo ma Yo, xamal la la gis nga sa voix boy bi nang ko ko fi di buy duul atuman atuman bu goma atuman ko soxor nga. yow do no ko waxu normal. atuman atuman ko bon xol day nah, joy apa wa joy jappu la No. papa. ndaw. tej no bunt bi de merci. loo xew. ah fii laa jëm. dugal. monsieur Bala yaa ngi toog. naka mu. dimbali ma. ah lu xew. papa yow man dama laa nduróog ak ku ñàkk fayda. non bokk. dama la nduróog ak ku manqué. non même pas. yow da nga bien sûr. quem ki ñu ubbil bunt bi ak ki ma fekk fii tuur ma gaali wax ko kan la. daf fee ñëw ndew kooku jànkal et c'est purement logique kër bu benn góor dëkk foo jaar moom jànk moom mooy fii xam nga. léegi lan nga ma naan sa kër yow sa yaa fi dëkk. non kii jànk la heures lay wàcc dem ñibbi. baax de dix heures cinq heures la fiy nekk. léegi yow lan moo tax di la wax bébé ngay ngay profité di génn ak di ànd ak Atoumane lan moo xew. non en fait Atoumane dafa amoon ben business bi wara war bo lijjanti booba tey tubaab beeg may woo booba tey loolu la ko doon yeggee. Hmm. du dara du dara. baax na en plus benen problème. waaw ah. yow ça fait une semaine ngi ni mhm. papa ma lay woo. do je sama appel. do tontu sama message en plus li nga waxone dara la ci gisul. suma la waxe temps yi ci lima nek mom motax sank ni ma xëcc Atoumane. mané suñu partenaire yi ñoo ñu sonal fan yi xam nga matin midi soir dañuy wo contrat yi lay jéxal fichier yi bind 5 h du matin lay teud yeewu 7 h kon loolu tax ma ñëw di nuyu di wax di la wax wax ju neex nga no be, no be, xoolal man foogoon naa ni yow yaa may comprendre xam nga man homme d'affaires la dem ak a xam nga sa waa jaa ngi ngi ci jàmm dama naal de est ce am nga jom histoire day jeex xam man yow mënuma la bay yow man ak yow kilo mbur la bay benn bop bi man may benn bop bi xana gisoo léegi ni may sàccee ni may sàccee eh, séeréer bi dama fa taxul deretu séeréer bi dugg sa eh, temps yi deretu séeréer bi moy daw sama yaram de tigi nak, a tous yow bal man nak xam kérok keroog affaire kii mo moo rek xam rek kérok booba bi moo yéeg ci sama bop bi daal di dugg sama yóor gi wàcc sama xëtër bi wàcc si suuf moo tax xam nga rek ma bëggoon. ma ne ma ne sa poobar su yeegatee. xoolal foo ko marine gis nga man sama ser gi dama ko takk ba mu dëgër même sa saw fa ajee fokk fekk fa fukki baaw ak juróom. ah nag xam nga yooyu noonu yëpp dégg la waaye barki faa bes. eh maa moom bàyyi waxal ni ngay waxee rek. bëggoon topp ndoo rek ñu niroo. yow xool nga ma ci kaw ba ci suuf dama laa niroo ku ñàkk fayda. déedéet. ah. déedéet. wax naa la fii liggéey moom moo fi indi du leneen moom moo fi indi te nag dañ maa waxoon ne góoru Ndakaaru dañoo gaaw a amala. déedéet man waaye su nekkee bii. man lii dama ko fii ba butit yi di génn. xoolal barki faa bés. barki faa bés man bokkuma eh, ak góor Ndakaar yooyu dama la waxal ni ngay waxee moo gën nga may toppal. waaw waaw te yow yow da ngaa bëgg ay affaire ëmb xanaa xamoon ni benn yoon. doo ëmb il faut nga dem benn ñaar ñetti ñeent juróom ngay soog a kii. doo doo doo yow mën naa fen lépp lu ma waxoon gisuma. xaalis bi ma waxoon ni danga ma koy jox boobu ba léegi ma toog di la déglu su ma la wooyee doo ma jël su ma la message bi doo faale. naa la ko transfert tey. ah man aw ma problème en plus yoo xam nga ne man dama laa bëgg. xam naa loolu. yaa ngi dégg te dangaa war a gaaw def ful la. te ah, en plus xam ah, man dama xam naa loolu yow it. xam nga ni jigéen ñi bëri na lool ma taamu la ci yow it. waaye jàppal leen. waaw te beneen yoon. Mhm. papa waaw. su ma la woowatee jëloo ma papa xam nga kër xam naa fi. non loolu service client bi la noonu la mel day tax ma ne kër gi du xam naa ko. kenn dootuma wan yoon bi. eh kaay ma wax la nag. bàyyil ma avisé la. déglu ma biir kër gi dafa am gaynde bu déggul jat soo bëggul nga dugg doo dugg man sama yoon ci jank bi yama intéressé li ma la wax nak waaye ci xel motax ma gëm la ay dem barki fa mo na ja wani atuman atuma atuman atuman atuman yow ñoo ñu ñibi mu ngi ñew de ma maa ngi taxaw fi xànk ni ci gannaaw Wah, manit, manit, manit, manit, manit, manit, ca ya yàlla man, ci lan la ma dugalati nii am man mii sax sama jëmmi bopp ci lah lan laa dugalati sama bopp man maa génn ci lii waxuñ ci loolu atuman ëppal ba dee lan la indee kii ci biir kër gi waaye te li ma gën a neex ci bi bi bi nga xam ni baa dafa woyof da nga koy muy aju ah am xamul darah, xam darah dara kay ndax mag la yow ya? loolu ya te du dara dañuy dañuy ñam rek ñu mos tuuti rek du fii nag ah. sa muus du ya. tak ba mu deger dan dole ñàkki jëriñu tak so soo ma takkee daal dinaa def ba mu baax waaye dara amagul suñu diggante doo fi am dara jege bi nga may jege nii sax dama koy dama koy bañ yaa yo yo yai cegang karam koi de yo yo yai vere cegang karam he he bu mu jogat ci sa gemin gi de mo moytuwul sa bopp dina la nok nokku national du am du am lol kay yàlla tere ci mo dig di iya, de ci pake la lay wate eh, ay nok yu bes tak tak tak tak tak moytuwul sa bopp nak de nga iya, xala lol sen ada la he di jëntal sa bopp ma li jëntal sama bopp oui ma Doma bisu. Hola oh, jaga bi payo Ahmad. Hmm, direk. Eh. Eh. Eh. Dimbali ma. Mo. Oh, Wayo ñak nga jom de. Yow. Nok la kérok bi rek ngay. Ki. Hmm. Daw. Daw. Sinala nokat de ki. Oleh pergi de jom. Mo. Hei, ki van lo ko nye? ah caaga nga de kii naa ko moytu caaga bu rëy la.